salaamaaleykum waaw ñu ngi nekk ci njeexital bi na xam naa noonu lañ koy mën a waxee muy màggal Touba Argentine vraiment ñu ñëw pour def benn interview d'une manière bref rek pour xool nan la ñuy toogee reer yi nan la ñuy paree euh, bernde yi guddi yi ñu ànd ak suñu euh, canal Big Deal in the House pour mën a def benn benn benn bref reportage rek. salaamaaleykum. Touba fekk la Argentine muy xam vraiment l'islam daf fi néew doole l'islam daf fi tubaranke nga egsi di ci teewal sëñ ba ngeen toll ci wàllu bernde yu mujj yi vraiment looy sentir waaw te sentir nañ mbégte ak kontante bu baax a baax parce que mën naa ni yàgg naa fi fekkee màggal mais bis bu toll nii moom wax dëgg yàlla mën naa ni la yoonu yoonu murit moom amul tànki amul tànki ginnaaw tànk kanam rek la waaw wax dëgg yàlla chaque année bu gën a ñëw day gën a àndaal daw me wax dëgg yàlla tey moom kontaan nañu trop parce que waaw def nañ ko nañ ko daan defee mais tey moom wax dëgg yàlla yëg nañ ci yokka euh, yokkute bu baax a baax a baax a baax siyaar leen ngeen wax ak sama jëwriñ waaw waxal jëwriñu gaa ngi nii sëñ làmpa nekk ne waa di sant yàlla bu baax waaw parce que amul lu dul bi mooy sunu lépp moo tax tey gis nga mbokki taalibe yi ñëpp ñëw nañ ànd toog ak ñun ci li ci gën a neex ñi bokk bokkal liggéey bi dañ la koy gën a bëgg lépp di mbégte wax dëgg yàlla sun xol sedd nañ lool waaw maam làpp moo nekk ne moom it sunu jëwriñ sunu tons moo di jiite ci kafe gi ndaamal daaru gis nga bokkut daal liggéey bi jaar na yoon macha allah am mbégte lool nag nekk bi démb ci suba ba léegi maanaam yendoo segg démb continuer di segg guddi gi maanaam fanaane ko di koy yendoo jox doomu aadama yi maanaam di sant sëñ Tuubaa baax di wax mii réew Bàmbaa ko moom meneen réew it moom tout le monde it Bàmbaa ñu moom jërëjëf Sëriñ Tuubaa ñun moom bis bi tey rek barka maam sarafal mbégte rek waaw bi naan bis bi bis bu mbégte la bisu lay wax mhm. te bis bii sant nañ si seen bu baax a baax waaw jaay faay bëgg nañ fa ñu ñëw vraiment ci njeexital bi ngeen def sañse yu baax nag ndax màggal gi vraiment bernde ci la mais sañse rafet it am na ci solo waaw ngeen li ngeen sañse def la ci kaw ba ci suuf muy lu nice ñu dëgtal leen suñu micro pour ngeen am yenn jàngat yoo leen na solo macha allah sant yàlla julliwaat ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñuy santaat Serigne Touba bu baax a baax niñ ko fekkee daaw ren jii ñu fekkee waat ko. di ñaan yàlla déwén ñu fekk kenn bañ a mànk ci darajee Seydina Mouhamed di macha allah màggal gi neex na lool macha allah euh, lekk yi benn yëpp macha allah ñëpp daal teewoon nañ ko si jàmm lañ ko teewee at yu bare bëri macha allah sant yàlla bu baax julliwaat Seydina Mouhamed di ñaanal ñëpp nag ñëpp ñu nekk si yoonu Touba yàlla defal leen yoonu jàmm ñu delluwaat si jàmm darajee Seydina Mouhamed. waaw sëñ bi salaamaaleykum maaleykum salaam. parce que lii man maa ngi doogay ñëw Argentine fekke màggal waaye xam naa ne Serigne Touba moo nekk fépp moo nekk ci xol yi Bamba partout gin wax nag naxuñu kenn parce que Serigne Touba moo ne fépp tey mën na ni amuñu jumaa ji demuñu Touba waaye Argentine wàcc na ba zéro barke Serigne Touba ñëpp xam na ni murid lañu ñuy ñaan yàlla nag bu déwénee yàlla bàyyi ñu fi ñu fekke waat ko ay déwéni dul jeex di ko gën a màggal di gën a dooleel Serigne Touba ndax moo xeex woon mission bi ñëw dëgg neexul kontaan nañ daal fii daal wàcc na ba zéro. beneen soxna xam naa ne vraiment muy mu def bële bu baax mu def bële bu baax ñu dégtal suñu micro soxna si loo yëg waa di sant yàlla suñu boroom di julli ci sang bu tedd bi salallaahu alayhi wa salaam del di sant yàlla bu baax bim ñu mayee ñu fekkee ko ca tal ko di wane ni bis bi moom ñun ñëpp kontaan nañ ci muy bisu sëñ Bamba bi ndax dani woon sama bis bi sant leen sant leen ko sant leen ma ko sant leen ma ci sama borom waaw ba léegi nag ñuy fàttaliku bisam boobu saa su jotee rek suñu xel nekk ci li mu waxoon Euh, yokk ca kaw ca kanam rek daal wax dëgg yàlla vraiment ñëpp ñëw nañu tey suñu xel dem na Sénégal lépp li nga xam ne ñu ngi koy màggal Sénégal ñu ngi koy def fii ci Argentine ñu ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, di ñaan yàlla nag fekk ko ay déwéni déwén te lu ñu man ren bu déwénee ñu man lu ko ëpp ci barke sang bu tedd bi di sant Serigne Touba bu baax a baax Ah, vraiment tamit ngeen màggal ci euh, ci ci tiis ngeen màggal ci ci ci méttit parce que da a da a perte koo xam ne dafa bokk ci yéen vraiment màggal gi neex na waaye tamit li ngeen di sentir ak message ba ngeen di lancer ci loolu waaw fii moom li ñuy sentir mooy xol yu fees rek xol yu tooy ndax su yi vraiment bi ñuy waajal màggal gi mooy ki nga xam ne moom moo taxawoon di jënd nurowaale yi nga xam ne moom la ñu war a togg bernde yi mhm. kenn jiituwu ko ci woon ba jëloon alalam sax joxe foofu seeñaa ndekete booba yàlla suñu borom nar na li mu nar waaye ñu koy ñaanal rek fa mu jëm gënal ko fii mu jógee ci barke sang bu tedd bi ñu koy ñaanal bu baax a baax di ñaan yàlla bu ko yàlla suñu borom topp dara daal. di santaat Serigne Touba rek waaw saa su ne rek di sant yàlla di gërëm Serigne Touba di sant Serigne Saliou wër di am mbégte lool nag ci liggéeyal Serigne bi ndax macha allah yombul waaye nag ku yàlla dimbale ba nga nekk ci liggéeyal Serigne bi rek da nga war a santaat Serigne bi bu baax baax a baax nag di ci ànd ak mbégte ak fierté nag di ñaan yàlla rek comme ni ko Serigne bi waxee saa su ne rek. luy mujj a ñëw rek di gàcceel la weesu woon ndax sëriñ moom saa su ne teyam ju ne jooy gis rek day gàcceel démbam waaw waaye nag nii la ko borom bi bëggee woon xëy na jàmbar amut waaye am nañu suñu borom di dimbale kon nag dañuy ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm rek boole ñu ci ñi yàlla di dimbale waaye sant nañ Serigne Touba baax am nañ ci yëg mbégte lool nag ak kontaan ndax macha allah daanaka mbir mi lépp jag na. Mara démb ba léegi ngeen nekk ci euh, liggéey Serigne Touba mu des dernière benn rey yëg. waaw bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulah waaw santaat santaat Serigne tubaak ak Cheikh Ibrahima Fall bu baax a baax baax a baax a baax waaw. mu mel ni mbiri sëñ Tuubaa saa su ne rek day yokk ndax soo xoolee si suba ba léegi nii mën naa ne ñetti fan mbokk taalibe yi ñu ngi bàyyi seen liggéey nekk ci liggéey sëñ Tuubaa bi maanaam mu mel ne mbir mi tey dafa dafa dafa dafa dafa dafa fooxe dafa fooxe lool lool lool maanaam lépp lu xalaatoon rek romb na suñu jot ndax xéwal yi doy na macha allah mbooloo mi wuy si nañ ñu ba nga xam ne maanaam ñun sax danoo yaakaar na ñun daanaka monde bi gisuñu ko lu ci gën a safar ndax Serigne tubaa moom moo ñu jagleel loon noonu ndax ñu ngi siy santaat Serigne bi bu baax di sant njiit yi nga xam ne ñu ngi ci di sonn guddi ak bëcëg suba ak ngoon dëgg yàlla màggal gi kawe suñu jot waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax di sant Serigne Touba di ñaan Serigne bi gën a dolli xéwali taalibe yi fi nekk nga xam ne jàmbaar lan heure bu ñu ci liggéey Serigne bi ñu sonn ci guddi ak bëccëg bëggatun dara mbokk taalibe yi fu ñu wootee ci Serigne Touba rek bëggatun dara ci àdduna waaw ñu leen di ñaanal képp ku ci fas dara lépp loo ci fas ak suñu borom nangul la ko te te laqal la ko fu yàq àggul bi jaay si alxadim. so kàddu am na solo. Baye onze billahi bismillahi inna wali allahu. xanaa taalibi bi Kara la. waaw dañuy santaat Serigne Touba bu wér a wér a wér a si boppam mooy loolu si boppam ndax lii jagle la tey Baye Fall yi démb ci suba ba tey jii ñoo ngi fi nekk ala acula amul bàyyi. da ngay yëkkati dara sax bàyyi faal yi bàyyi dan loo koy gën a bëgg nga xam ne lii tey jii bu doon dan lay fay wala dara mënuñu ko nga xam ne daal kon sëñ Tuubaa moom moo nu kàttanal moo nu may dooleel daal man man man man koo dékku. barke Seydina Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram te taax ñu ci barkeem di santaat bu baax a baax a baax di wax ne alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah dëgg yàlla màggal gu ne am na fi waaye bu tey moom dëgg yàlla daa mel ni wax dëgg yàlla ñu ngi koy dundee maanaam ca Sénégal. di ñaan nag wax dëgg yàlla suñu borom wax dëgg yàlla lépp lu ñu fi jaamu ci sama borom wax dëgg yàlla yàlla ko yàlla nangu ci barke alxuraanu karim wax dëgg yàlla xasida yi ñu fi jàng ak wax dëgg yàlla alxuraan ji ñu fi jàng wax dëgg yàlla lépp yàlla na ko sama borom yàlla nangu ci barke alxuraanu karim mboolem ko fi indi jàngoor daal yàlla na ko sëñ bi saafara moo xam nag ak kullu jàngoro bu mu mën a doon rek yàlla na ko Serigne Saliou Mbacke saafara loolu nag moom moo ëmb lépp yoo xam bismillahi mina seytaani rajiim ban sant yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne wasila Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu waaw wax dëgg yàlla macha allah magal ren moom macha allah soo bëggee dëgg-dëgg macha allah daal ñëpp teew nañ xente bi ñëpp ñëpp a ñëw wax dëgg yàlla neex na bari na macha allah Baye Fall jàpp nañ ci liggéey bi baax a baax wax dëgg yàlla jàpp nañ ci bu baax macha allah wax dëgg. def nañ ci daanaka 24 heures a ngi nii tooguñu defuñu dara bàyyi seen liggéey lépp nekk ci liggéey seen tubaab bi wax dëgg yàlla jël seen addiya ak seen ñaq seen lépp di ko xeeb macha allah wax dëgg yàlla ñu leen di sant di leen gërëm ñoom ñëp ah santaat ku tedd ki rek di wax na jërëjëfe Serigne Touba jërëjëf di borom Touba jërëjëfe borom Touba maanaam li ñu yëg moom mooy yëg yëg gi ñu yëg li ñu Serigne Touba defal ñun mbokki taalibe rawatina ñun murit Serigne Touba yi ba tax saa su nekk rek bu ñu déglamaalee bisu ku tedd ki maanaam dañuy am fierté pour liggéeyal ko maanaam ak suñu ñàkk ak suñu doole ak suñu poos ba tax na maanaam lépp lu ñu def ci bisu ku tedd ki rek nekk na loo xam ne lu ñuy xeeb la lool nag maanaam bu ñu doon dem fii ba ay fani fan duñ yëg ne maanaam coono am na ndax ku tedd ki maanaam jaral nañu loolu santaat Serigne Touba rek di ñaan nag eh, maanaam at mii di ñëwaat sama borom gën a diisal poos yi faj aajo yëpp nag lu lu ci waay bëgg rek na ko si fas te xam ne ku tedd ki mën na lépp te dina def lépp bu sow yàlla ñu ngi sant bu baax nag ku tedd ki di wax jërëjëf Serigne Touba di leen sant bu baax nag yéen ñi nga ne yéenay suñuy xalifa te jiituñu ci yoon wi te ñu teg ci yoon wax dëgg yàlla ay mbégtey kese daal ñu ngi fëtëne nag saa su nekk rek at mu ñëw dàq ma ca des waaw jaajëf waay Badou jaajëf jaajëf Baye Fall waaw kon Fall xam naa ñu ñu ñu ñu laaj laaj rek mooy lu waay loo yëg vraiment mooy question tey bi loo yëg vraiment ndax yëg-yëg la démb ba léegi ngeen na ci waañu métti na waaye yëg-yëg moo raw ab coono. waaw liñ yëg moom wax dëgg yàlla kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax instant bii fii ba une semaine moom son nañ trop mais yëguñu coono fi mu toll nii barke Serigne Touba kontaan nañ suñu xol sedd na di ñaan yàlla suñu borom balaa déwén yàlla yokk xéwal yi yokku wërsëg yi ban màggalee ñu ko sa kër Sëñ Touba ga waaw xéwal yi yaatu lool yéen tamit jëwriñ yi seen liggéey rafet na trop waaw lépp teg ngeen ko si yoon ñu ngi leen di ñaanal daal maam ngeen gën fee yàgg di si jiite waaw di ñu tete bu baax a baax a baax xool sedd na kontaan nañ lool. ànd ak mbégte rek parce que am murid moom amul lu lu bu gisee ay mbokki taalibe di sonn rek day ànd ak mbégte ginnaaw bi ñu sant yàlla sant yonent bi sant Serigne Touba mi nga ne moom moo ñu may jàmm comme jàmm moom moo la jàmmal. Mm-hmm. mbégte rek la àndal barke Seydina Mohamed ñu ñaan yàlla bu ne suñu borom defal ñu lépp lu fi ñàkk rek suñu borom defal ñu lu kawe suñu njort si barke Seydina ñu bëgg a màggali déwén sama borom yombal leen ko ñu màggali si barke yonent bu tedd bi. ci yeneen secteur parce que vraiment xam naa ne xam naa ne Baye Fall ñu ngi fu ne ñu xool ku ne rek dëgtal la suñu micro moo xam dañ lay fekk nga taxaw di xaar bernde yi moo xam dañ lay fekk nga nekk ci yenn affaire ñu dëgtal mbokku taalibe ku nekk wax li mu yëg rek. Ah? loo yëg ci màggal gi loo yëg. Ah, ah loolooy laaj bi tey. ah xanaa sant bu baax sant Sëñ Tuubaa rek kontaan bu baax a baax ndax ah, màggal gi neex na jàng nañ ci jàng ci alxuraan ji berne berneel tubaab bi dundal bis bi suñ tubaab daal moom xam naa ne daal ñun daal dañ koy sant rek wax dëgg yàlla am kontaan nañ daal macha allah. am na solo am na solo jaajëf Baye Fall. waaw salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu wér a wér di leen bége bu baax a baax a baax wax dëgg fa yàlla ku dégg suñu kàddu yi xam ni mbégte rek ci la ñuy wax. waaw màggal gi moom wax dëgg fa yàlla yëg nañ ko lool waaw yëg nañ ko ci saay rek ci baatin waaw wax dëgg fa yàlla neex na lool lool lool lool màggal gu mel ni moom mosu fee am man moom wax dëgg fa yàlla. waaw def naa presque deux ans Argentine waaye màggal gu mel ni moom mosuma koo sentir te daal li ma yëg moom Serigne Touba rek laa koy seedeel wax dëgg fa yàlla. waaw bëgg nañ lool lool lool barik Serigne Touba. loolu am na solo bi dox na lekk yi doy na naan gi doy na waaw wax dëgg fa yàlla kontaan nañ quoi. waaw wax dëgg yàlla màggal gi moom neex na neex na trop moom car macha allah moom lépp jàmm moom lépp am na xam nga et quelque waaye daal li ma gis tey moom maa ngi ko doo gis waaw gi neex na trop moom car macha allah lekk yi doy na lépp doy na naan nañ lekk nañ ba suur naan nañ ba mandi ah neex na trop moom neex na trop moom. nekk mu nekk dernier reportage bi ñuy def di laaj Baye Fall yi nga xam ne ñëw nañ ci màggal gi mbirum sëñ Bamba fii ci Argentine bi nga gisee jataay bi gis mbooloo mi gis lekk yi gis bernde yi lan nga yëg wax dëgg yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waa Big Dial yéen la ñuy njëkk a gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy taxawal te dara ñor leen lu dul jotaay Serigne Touba yi waaye màggal gi ren moom wax dëgg yàlla dafa dafa kéemaane waaw parce que gis nañ ci loo xamante ni daal kaw na suñu njort waaw kaw na suñu njort lool lool lool muy mbooloo mi nga xamante ni daje na fi te wax dëgg yàlla bernda yi mat na macha allah njàng mi tamit yéeme na. li mu lim bi nga xam ne def nañ ko tamit ci arxaan yi ñu wàcce tamit bu ko jëwriñ sa ñànkoo ba di wax tamit wax dëgg yàlla jéggi na dayoo suñu xool daal fees na sant nañ Serigne Touba bu baax a baax a baax ñu ngi yëg ne li ci des lépp dañ koy bàyyi borom màggal yi ñu ngi naan nag suñu borom lépp li nga xam te ni son nañ ko sa mbëbët nañ ko ci yàlla nañ ci dajeeg yërmandeem waaw ñu ngi jaajëfal nag gars yi nga xamante ni ñëpp teew nañ di sant tamit suñu jëwriñ sa ñànkoo ba bu baax a baax a baax ak waa xitma surtout seen taxaw rafet na lool lool lool lool lool dara soo xewul tey liggéey bi teg nañ ko si discipline waaw eh, fi ñu tëjee nag mooy waa Big Daayir waaw da leen di ñaanal ngeen amee télé yi nganda nganda nganda nganda yoo xamante ni bi bu man a amal ci dëkk bi saa da ngeen di génn di def ay convoi ay convoi oto yi yëpp lu ñëw barki Serigne Touba. jaajëf Baye Fall. vraiment ñu ñu toog ak mbokku lawbe yi ko xam lawbe xam sëñ xam ne am na wóolare bu am ak waa ñu toog ak suñu xefe bi nga xam ne moo yor wàllu waañ wi di Cheikh Malaw kenn dootu ko présenté ci Argentine ak li ko wër Cheikh Malaw ngeen nekk ci dernier réglage yi ngeen nekk ci dernier benn rey lan ngay yëg. naas salaamaaleykum wa rahmatulah di wax bisimilah rahmaani rahim auzu billahi mina shaytaani rajim jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla sant yonent bi sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba fu ñu toll. xanaa di nekk ci waaje séddale réer yi rek te di ko sant Serigne Touba bi nga xamante ne dara teewu ko lu ci jag rek sëñ bi la ci defaru it sëñ bi la ñàkk a defaru it xam ne matal doomu aadama la rek waaye sëñ moom matal na lépp di bëggee mbokki taalibe bi fi teew yëpp di la ñaanal jàmm ak gudd fan ak wër sëriñ bi mën na ko yal na ko defal ku fi teew yal na sëriñ bi faj say aajo barke xaadim rasul yal na ko teew ay déwén déwén ubbi ñu buntu baabal xëyri dafa ñu ay xéewal yàlla ubbi ñu suñuy wërsëg ñu ñëpp ci réew mi ci barke borom Touba. Kumba lan ngay yëg bi nga ñëwee ci màggalu suñu sëriñ Touba gi muy màggal goo xam ne fii ci Argentine. naam lislaam néew na fi doole sooxe na fi ngeen teewal sëñ Bamba lan ngay yëg. Ah, asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax jërëjëf Serigne Touba di kontaan rek di xam ne mbiri Serigne Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la di ñaan yàlla luñ fi def ren bu déwénee ñu def lu ko raw di ñaan yàlla fekki ko ren fekke waat ko ay ati at ci Seydina Mohamed di ko teew bari kontaan vraiment parce que doon murid rek dafa neex te réew mi Serigne Touba ko moom. fii moom Bamba mooy ki ko moom allahumma salli ala sayyidina muhammad adada ma fil mila salatan daimatan fi dawani allahumma salli ala sayyidina muhammad abadana fil mila salaatan daayimatan fii dawaane moo góor murid asalaamaaleykum mbokk taalibe yi maa ngi leen di ziar kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jaajëfal télé bi di Touba TV Argentine waaw di ko jaajëfal bu baax a baax a baax parce que liggéey bi wax dëgg fa yàlla jaar na yoon Baye fal yi bég nañ ci te programme bu am Argentine rek ñu ñëw taxaw filmer ko jaarale ko yoon ci àndam bu sel muy Gambien di gor a sekk di sama grand Badou vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi. Ah, di ci di ci teg itam ne ñu ngi ñu ngi naan jaajëfe Serigne Touba jaajëfe Serigne Touba jaajëfe Serigne Touba parce que yàgg mën naa ne ñetti màggal a ngi nii fekk ñu fi mais màggal gu ñëw rek day mel ni ga ca topp moom moo gën a ala dawme wax dëgg fa yàlla bésub tey gii ñun li ñu yëg daan moom daal dépassé ñu dépassé nañu lool sax wax dëgg fa yàlla parce que gis nañ ci mbooloo ga nga xamante ni mosuñu ko fee gis. gis nañ fi bernde ya nga xamante ni musuñu ko fee gis te maanaam nañ ko organiser organisation bi wax dëgg fa yàlla jaar na yoon Baye Fall yi bëgg nañ kontaan nañu sant nañ sëñ Touba bu wër nag ñuy ñaan yàlla suñu borom maanaam ñu koy teewee ay déwén yi déwén maanaam suñu borom def ak tawféex ci dëkk bi def fi xiiwal gu saawaan baawaan ba ba jaam yàlla yëpp yëg ci seen bopp jot yi barke Seexul Xadim ci barke borom màggal gi. loolu mooy laaju tey bi loo yëg. waaw màggal gi moom liñ ci yëg moom wax dëgg yàlla moom am na solo trop trop trop trop ndax maanaam ki tax nga xam ne moo tax ñu def màggal gi mi xam ne dafa liggéeyal borooma maam ba boroom faye ko maanaam mbooloo mi yëpp nga xam ne liggéey bu am solo bi mu doon def nga xam ne daanaka mën na ne bernde yi nga xam ne moom la ñuy def ci màggal gi ak muy Sénégal muy Amérique muy Europe fépp daanaka moom. monsieur kii loxo monsieur euh, jël monsieur ñam fu dara ngir lépp ngir bëgg a dimbali jaam ñi wax dëgg yàlla moom am nañ ci yëg-yëg boo xam ne ci ñun suñu xol ak ak ñeneen ñoo xam ne sax bokkut ak man kontaan naan trop nag wax dëgg yàlla moom di ñaan si borom maanaam képp ku fi ñëw rek mu def la tawfeex ak taysiir li nga doon wut suñu borom yombalal la ko maanaam jàpp ni lépp woyof ci barkeb borom bis bi ci barkeb Xaadimu Rasuul ci barkeb lépp lu fay ñaan daal yàlla na ko suñu borom nangu ci yomb la lépp. yeneen mbokki Baye Fall yeneen mbokki taalibe ñoom ñu def toog rek di xaal bernde waaw soo ba léegi ñu xëy di bernde soo ba léegi ñu nekk ci Baye Fall di bernde nit ñi ngeen nekk ci dernière bernde di ko xaar lan ngeen di yëg ci màggal gi lan ngeen di yëg. jërëjëf Serigne Touba kontaan trop Badou barke Serigne Saliou Mbacke màggal gu ren gi moom dafa ala dawme Badou màggal gu ren gi mos fee am barke Serigne Saliou di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool mais lii yàlla na jëm kanam bi mosu fay am quoi kontaan nañ trop barke Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàq yàlla na yàlla yokk seen fan yéen ñi ñu baax ngeen nag yéen mën na ñàkk ci dëkk bi barke Serigne Saliou waaw li mu baax rek di wax jërëjëf sëriñ Touba rek Serigne Touba moom amul morom te bisam tamit nii rek la mën a mel kon nag moom di doole di sant rek di ñaan fekke ak wér ak gudd fan ba ñu koy mën di teewe ay at yu bëree bëri daal kontaan nañ daal jërë ngeen jëf waaw di sant yàlla bu baax tamit di ñaan ñëpp tamit moom ñaan yàlla tamit xéwal bu déwénee ñu magal ko kër seen Tuubaa ji bi nam bu déwénee ñu dem magal ko foofu tamit di ñaan yàlla bu baax tamit di soññ ñëpp tamit ñu gars yi gën a góogóor si cotisation yi pour liggéey ki seen Tuubaa ndax kër seen Tuubaa ji moom war nañ sa mën a def Pastef xool nu ko doxalee ba kenn ku nekk cotisation ni joxe kenn ku nekk mën mën kaa joxe tamit euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp dañ ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàlla yàggal ko fi ten fekk ñu ñëpp bakk xaadim loo soo wa salaam. jërëjëf waaw sëñ Cheikh vraiment muy laaj bi daal yëg-yëg bi rek. suñ borom daal la laaj loo yëg. maa ngi leen di ziar di leen sant di leen gërëm ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ak borom màggal gi di sant euh, yéen waa commission di leen sant di leen gën a ñaax eh, ngeen gën góor góorlu li ngeen nekk metti na jiital nit topp ci di daw saa su ne ñii di jàmbat fee ñii di dingat fee yéen daal laay sant yéen ñi yor wàllu commission bi ni ngeen ko defee suñu xol sedd na ci gën leen góor góorlu ca xool ca kanam metti na nag ñu ngi koy ñeewante bu baax nag ak yéen metti na bu baax a baax waaye li ñuy sant daal mooy yéen man moom yéen laay sant yéen ñi yor wàllu commission bi vraiment gën leen a góorgóorlu loolu rek laa leen di wax te ngeen gën a muñ waaw suñu xol sedd na loolu nag jërë ngeen jëf loolu rek jëf sëñ si waaw comme comme d'habitude rek ñu ñuy laaj loo yëg ñu nekk ci dernière dernière dernière bernde yi ñu loo yëg loolu daal mooy laaj bi loo yëg waaye lu lu kawe lu kawe di ñaan rek lii nii moom gën a yaatu waaw maanaam Serigne Touba moom saa su day wane dooleem saa su da koy wane waaw lii moom koo gis xam ne moom waxuma la kii mais statu River boo moytul fa lañ jëm. dëgg la waaw ndax nit ñi bari nañ lool mais nag sëñ Tuubaa moom li mu liggéey rek. Mhm. saa su ne moom da koy day maanaam suñu borom fay na ko daal. di ñaan nag ñoom ay million milliards fekke ko ay dëwën yu bëri CFA ak dollar ak euro yu bëri waaw ak ay jongoma nag mënu si ñàkk. dëgg la waaw waaw waaw comme ni ko sëñ Xaadim waxee rek sant sëñ Tuubaa bu baax rek ndax wax dëgg yàlla bés bi moom koo gis xam ne Sëriñ Tuubaa daal moom yeboon ñu kennal ko rek waaw te jàpp gi wax dëgg yàlla waa caméraman yi ñoom it amuñ seen fay wax dëgg yàlla depuis bi safar gi taxawee ba léegi fu ñu jëm ñu ànd ko ak ñoom wax dëgg yàlla maanaam amun seen fay daal wala administration moo Badou Ndiaye wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax daal nangu daal maanaam gépp ñaan guñ fi ñaan rek Sëriñ Tuubaa nangul ñu ko te ñu ko te ko déwén yu bari bari rek ci barkeb Seexul Xadiim jërë ngeen jëf waaw ah màggal gi nañ ko teew ay déwéni déwén lépp luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom bi nangu ci barke Cheikh Massamba jërë ngeen jëf ñoo ñëpp nag. waaw salaamaaleykum. ah Magal Touba Argentine moom ren moom ala daw mi nag macha allah mention spéciale organisation bi jaar na yoon gars yi am nañ espace mbooloo mi ñëpp ñëw nañ en masse kontaan nañ trop yàlla nañ ko def ay déwéni déwéni déwén. waaw télé bi nag yàlla na ko yàlla gën a yokk ca kaw. nu ñu tudd big deal. big deal. big deal one dugalal boobu nag. big deal wala waaw mais vraiment ñu dëkkalaat beneen beneen sëtub Serap Fall boo xam ne moom du ko tax nanguñu koy wax vraiment day bañ waaye ñu dëkkal ko suñu micro rek laaj ko lu mu yëg xam ñoom sax bu ñu laaj lu yëg day xaw a teggi ndewul waaye ñu laaj ko rek lu mu ci màggal gi. ah waaw ah, Cheikh ñu ngi lay ziar baax sëñ Baru ñaanal di ñaanal mbokk taalibe yëpp di ñaan màggal gi wax dëgg yàlla gis nañ yëg nañ sëñ bi daal am nañ yëg-yëg sëñ bi lool gis nañ it ak yokkute. Euh, ren lañ koy soog a def fii ci Touba Buenos Aires waaye ñi ngi ñaanal mbokki taalibe yëpp euh, Cheikh Ibra guddal seen fan wéral seen cër ba képp koo xamante ni rek am nga fi tawat joo fi indaale yàlla na ko Cheikh Ibra dindi képp koo xamante ni euh, yàlla dogal na nga ñëw fi ngir wut pour dimbali say waajur yàlla na sëñ Bamba yombal lépp suñu xol sedd na lool bak Cheikh Fall waaw am nañ mbégte waaw ci bis bi ndax bis bi rek lañ am. amuñu dul bis bi ñun ay Baye lañ waaw euh, waa kër Cheikh Ibra nag moom foo buñ ko waxee rek euh, sëñ Tuubaa lañ am. kon bis bi suñu bis ndax boo gisee mu doon suñu bis mooy Cheikh Ibra amutug màggal amutug màggal ndax moom nee na du duñ defal sëñ bi duñ defal sëñ bi mukk bis di ko defal bis ca wet ga kon ñun bis bi suñu bis kenn waruñu koo gën a bëggle kenn waruñu koo mën a gën a jàpp waaw kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Bamba di ko di ñaan gudd fan ak wér dëkk bi am jàmm mbokki taalibe yëpp am jàmm ci barkeb Cheikh Rafal sant nañ baax baax jërëjëf am na solo ñu dég talaat beneen grand boo xam ne nii moom du ko présenté ci dëkk bi mooy grand bi nga xam ne mooy regroupe xale yi di leen teg di leen teg ci yoon amal ñëpp jàmm muy grand bu baax ñu wax grand Bawa Diaw grand lan ngay yëg vraiment lan ngay yëg ci màggal gi bi nga toogee ba ñu nekk ci dernière bernde yi lan ngay yëg tout d'abord euh, dañuy julli ci yoon di sant yàlla ci julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sant euh, Serigne Touba Euh, di kontaan ci yéen vraiment macha allah euh, ñun nag liñ ci wax bariwul lu dul lan sant yàlla biñ bokkee ci njaboot Serigne Touba bu mu ne teewee lii bay bokk ak njaboot Serigne maam Cheikh Rafal bi jaxasoo ak ñoom vraiment ñu suñu wëlëre yu baax lool euh, loolu daal lañ ci am luñ ci yokk gannaaw sant nañ yàlla di ñaanal yàlla ñu fekk négé ni déwén te déwén yàlla nañ ko màggal ñëpp Sénégal ci barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu taala wa sallam kontaan nañ ci yow bor gis nañ seen liggéey vraiment macha na la yàlla may la wér ba kontaan nañ waaye daam waaw mbébét bi xam naa xel mi daal nekk ci reer nag waaye vraiment mbirum mbirum sëñ Tuubaa amul amul xiif waaw kon day a auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf borom Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibra Fall euh, lii nag sant la ndax Serigne Touba dañ nañ ko ci ne sant la boromam li ko tàmbalee maanaam ca ginaar ba ca gileem wax dëgg yàlla tey jii képp ñëw fii nga xam te yaa nga Touba kon ñu ngi ànd ak ñi nga xam ne tamit ay mbokk taalibe leen muy Badou Ndiaye a Gambien ñuy liggéey liggéey bu rafet ci dëkk bi fu ne lañ fay dem dinañ dem Cordoba Tukumaan Samdigal fu ne rek kulim jum kon jërëjëf Serigne Touba lii nag ak sant la di sant Serigne Touba bu wér a wér a ndax Serigne Touba de bam na ila yaqadilaahu maalam yëkkuni wala yëkkoon abadan li mun ki ni yàlla may na ko loo xam dut ko may kenn kon bu ñëwee fii ci Argentine ànd ak nit ñu weex ñi ay nasaraan ñëw di sant rewaat Serigne Touba kon loolu ñun wax dëgg yàlla dañ ciy santaat Serigne Touba bu wér a nag di jégalu bu baax lépp lu ci dëng tamit man laa lépp lu jub ma sant ko suñu borom subhanahu wa taala jaajëf